doon amateur doon supporter doon tamit ki nga xamante ne mooy un membre de la lutte sénégalaise Gora Mbaxal lay wuyoo Gora nuyu nañu. yee bii bi maa lay ziar di la jox sa wàccuwaay di dalal soxna si mu matu ak sa caméraman bi di leen ziar quoi di wax ni alhamdulilahi rabil alamin ñu waxee bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñu sant yàlla di julli si bàyyi lay alihi wa salaam. di ñaanal xalifatul muslimin suñu maam Dudu Moxtaar yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla bàyyi sëñ may si Mansour yàlla na ko fi yàlla bàyyi suñu mbokk njaasaan yeeg xaadir yeeg ñaseen yeeg chrétien yi tamit ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yaa nga fekk fii sama koñ mi Kawsara xam nga may doon président ASC Kawsara te ñoo final le 3 la final bi ñu nag waa Kaaju may ñaan jàmm yàlla may nu xam nga te commencé naan championnat bi ASC Cambérène je suis le vice président de l'ASC Cambérène xam nga tey dañ doon joué def match nii mais bii au passage tamit may ñaanal Lat Diop muy doomu Sénégal yor carte Sénégal di citoyen yoon teg ko loxo si lu leerul si bëgg a defante ak règlement de compte may ñaan yàlla na ko yàlla génne bopp sa koroog bi ma demee seeti ko xool mu toog ma toog sama yaram dafa daw koo tuddee sa doom tuddee ko sa deret am na loo nga xam ne mooy loolu ko quoi kon ma koy ñaanal jàmm xam nga du ma ko mus a bàyyi laat yàlla na ko yàlla jàppale ba mu génn fee mu ne laat maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla jàppale nga génn yaag say moom temps maa lay déglu kàddu yooyu noonu am na solo mais góor ñépp dañ laa xam ci làmb tey làmb am fu mu toll ñu ñëw ci diggante ki nga xamante ne mooy CNG bi ak ñu dul làmb yi ki fi nekkoon doon Bira Sène mandaawam dafa jeex coow jib diggante ñi nga xamante ne ñoo ŋànk làmb ji ak ñi nga xamante ne ñoo bëgg ñu dénk leen bi nga gisee loolu naka nga ko naka nga ko. waaw waaw waaw àdduna noonu la ah àdduna ñëpp bëgg. xam nga ñi bëgg ñi bëgg ñi bëgguñu lee ñëpp mën nu bokk bëgg-bëgg yàlla yamale woon bu yàlla yamale woon sax am ñu génn seen cër mais kon bu xëccoo amee c'est logique quoi mais nan ko def yëfu gentleman ak yëfu responsable parce que yoon la quoi nan ko def si yoon bañ ko mu rafet ñu bañ a xiiroo ŋaay parce que suba ku si manti doon tamit ñeneen ñi ku si wax lu ñaaw mhm. yaa am gàcc dëgg la xam nga nit day day day sóoraale suba te ñum ay gaay lan nan waxtaan si juboo waxtaan si jamm parce que ay CNG jarul rayende jarul coow ak fi mu egg ni waru ko won àgg waron nan ko lijjanti dans l'amiable ñi bëgg bëgg li ñi bañ bañ li musul am silam, ci danan CNG da nan fal ni te daanu si am xam nga kon warna na rafet ñi fi jaar bu nu gëna goré gore ñi ngankal lamb ni nan rafetal seen papa ak seen mam fi nekkon ak seen mag dem bàyyi ñom ñew jël xam nga nan ko jaara si yoon parce que ñun bu ñuy seetaan image yooyu day ñaaw xam nga ñun ñu bokk ay xale bokk si làmb ñuy gis yenn kar kanam dañuy metti waaw te làmb jàmm rek a si war a am facteur de développement la làmb day maye xaalis xam nga affaire noble la nan ko def yëfu bañ ko def yëfu yooyu daal man loolu laa si am na ma si wax addu yooyu noonu am na solo macha allah mais tey góor dañ ko xam ci làmb waaye tamit dafa am kenn fa nga xam ni da nga ko ci làmb muy ci Modou Xarañ Lo ngeen jëm ci combat royal diggante Modou ak Siteu fan ngeen toll ak làmb ji jamono ji ban ampleur la jëlaat. waaw au passage may gërëm Mansour Ba le PDG de jàmbaar moom mi nga xam moo tëgg combat royal bi diggante Modou Lo ak Siteu di gërëm waa jàmbaar production bu baax ñoom assurance Papa Gueye xeer xam nga gars yi ah, maa ngi leen di gërëm Papa Sow xam nga grand Assane gars yëpp daal maa ngi leen di ak waa ku ñoom Mansour Berba ma koy ñaanal moom mi xam moom lañ tuddee drapeau bi di wax Mansour li muy séntu si làmb ji yàlla na ko si yàlla may yàlla na ko yàlla jàppale combat royal Modou loo am ndam waaw bii boo ma laajee loolu dama si neexutoon ma man parcelle Cambérène Grand Médine dama see bokk làmb kenn du fi tudd te waxunu ma kon loolu sant yàlla la Modou Lo dem na regroupement depuis semaine passée Modou Lo dugg na regroupement dugg na regroupement depuis semaine passée lëlu moo gars yi di entraîné di defaru xam nga parce que làmb ji moo laaj loolu dafa laaj dugg récupérer defar ay bagages xam nga kon bu jotee rek loolu la nekk nii mais moral bi baax na mental bi baax na physique bi baax na lépp baax na si Modou ñu dañuy ñaan yàlla Modou Lo lii mu yor nii ah ak li mu téye nii ak entraînement yi fi mu ne yàlla na ko yàlla jàmmal dara bañ ko dal ba le 24 novembre. maanaam si entrenement ak état physique bi moral bi dafa baax. instant torop yàlla bu ñu cat bu ma laal ban nga waaye la tey na nekk léegi tey dafa sori léegi léegi waxantuma bëggalu ma neex nit ñi bu doon léegi léegi Modou Lo daan Siteu jël bu yomb di ñu ci. saa man c'est que man gëm-gëm bi ngeen am ci yombal bés bi man daf ma daf ma. non yombalun ko nag gars yi gis yombal xam nga fi ñu moo gën a tar fii ñu jëm. bëreeg Siteu ngeen ni moo gën a. moo gën a yomb que bëreeg Ama Baldé ak bëreeg Boy Niang <laughs> parce que lamba yi bokk dayoo yi bokkul. mais ñenn ñi la rek Ama bu parewul du dem di songi Ama kañ lay pare làmb la woon Ama parewul loolu dañ koy bañ a dégg loolu bu parewul doo Ama bis lu ko jaraloon ak fu mu toog ni roi des arènes nu mu ko leeree bu bu ko leeree ko ajanam leeree woon mu dee kooku ngeen naan parewul bàyyi leen yooyu boo ñaaree pare na. mais nitu làmb ñi ñoo koy wax. waaw léegi génne Ama de côté. waaw Boy Niang pare na. mais coow li amul coow si da coow ban coow lan la fi def. si te coowal làmb si tënk. bu coowee làmb bu ñëwee ñu duma ko daan ko. ku Sa Thiès guy gi maîtriser Modou Lo da lay defaral. wala ku Sa Thiès guy gi maîtriser la. waaw bu la Modou Lo téye da lay def lu lu lu jéggi dayoo. jamono yooyu. jamono yi bokkul tamit am na lu changé. mari mooy plus mais di de plus waaw kon parce que boo xoolee si jamono ji bëri ci làmb ak do doole kon dafa plafonné. jeex na kon nag ku plafonné ak kuy màgg bokkul baar bi leen sës. mais baar bi ngeen a mënatoo leen ko romb mais kii mën na romb baar bi boo bëggee dégg dégg. coow ay bari nii avant làmb waaye bisul làmb coow du am de. dara du yëngu ñun ñeme nañ kase mu mudem mu dem bëreeg si dañuy bis. non loolu ñeme woo leen ko wax jee fi ne rek. budé dee bu dee loolu ñemewuñu ko yàlla bu ma waxtu bi raw modu ci bopam mo wax. ngeen tok mu ne len mu ni len amul degom ku fay xeex mu ne dem len gën tok bàyyi len ma combat bi sama combat la ma dem beure ji ko. gaay ñoy ñooy rafetal ni di taral ndax mansoura ay bu loolu ma dañ bëgg tous ba pare gars yi sol blouson bi yéeg si kaw première ligne toog Modou bàyyi ko muy baagante mu dugg si géew mais bu mais surtout mbër gi muy woote mbër gi war a ñëw mbokkoon ñëwagul ñun tam dañ ñëw mbër gi war a ñëw si moom ñun danoo ñun dafa ñëw Modou bi muy dem bi mu dem ah bi muy dem dajewul ak ku fa jëm bi muy ku ku fa jëm maanaam Modou Lo fi mu jëm bi mu fa demee fekk fa kenn. lépp ku fay dugg daja wala ku fay dem. olof nag laa wax ñaari ceeb. te dégg wax. waaye Siteu lu mu wax déggoo may la loolu waxam la déggoo may la olof Njaay lan ka ki naan benn ñaata ak saa ñaata bokkul si kër. muur ngaa ñëw ni tool bi ñaata. mbër yi ay emprunté yëpp dañ ñëw ni benn ñaata. mbër kaamil la waaw Siteu bu dee Ya kaamil xanaa Modou Lo tëj na kaamil boleh xam nga ne yow booy taqaleeg Modou ak Siteu bëgg sa caméraman di gars yi seetaan la mais yow sa conscient tranquille nga toog ak yàlla doo wax Siteu di wax Modou bokkunu sax mais lamb lamb est-ce que toll na fu ñuy nattatee nit ak nit mais pourquoi pas nit da nga nat nit da koy natt est-ce que noonu la la mais tey dama lay jox exemple mm, waxal ma yaaw jaar est-ce que ñemee nga kaa booleeg Siteu ci bër lan day teew kon non day teew day teew mais làmb ji dafa am fu mu tolloon. waaw coow li demeewul woon nii mais bi ñu demee ba làmb ji des un mois si te dem ñëwaat coow li dafa changé. waaw parce que ay coow foog mu changé déggoo ma la Mansour Ba moo ay le PDG de jàmbaar amul ruq buy sedd si da bu yaakaaree ne dafay ñëw nit ñi di ko neexal wala day nax boppam mbokkoo wu nu xaritoo wu dañuy bëre si dañuy làmb. na ànd ak waa Jonwaar ànd ak waa jàmm gën duñ ko moy ku jekku sa moroom yéy amul baale dëggoo may la amul lu nuy maye ak lu nuy baale ñun soxloonu baale soxloonu maye ku jekku sa moroom yéel ah tiit nga nag mais Modou Modou ne ko maa la gën a xotteeku fukki junni yoon ak juróom aller retour li Modou lu dëggoo may la ñëpp xam ne kooku oustaz la lu mu la wax ni lool lool la Siteu ba ne di def ay manière di raga joog di jëb li ak di nangam. Mhm. Modou Lo dalal nga ni ko eh maa la gën a xotteeku te aller retour te loolu mu ko wax ak moo am bis bu ne arbitre ne prib lay xam li moodo Modou wax. mais tarkindaa bi yow xam nga ni tarkindaa bi amul lu muy may ci lamb. déggoo may la bu la 24 bu gisee yaayam du bàyyi mais le 24 du gis mère day bàyyi force la day bàyyi. nga ni bu la 24. déggoo man la combat bi paas nee la la dëgër su ma gisee sama yaay du bàyyi mais le 24 du gis maman day bàyyi. non tu vas laisser Siteu tu laisses. non du bàyyi. ban laay day bàyyi. Siteu billaay wallaay taalaay su bàyyi wee ci combat bi. waaw waa waa jàmm gën génn ci moom ndax combat bi mooy combat bi nga xamante ne moom la war a gën a fonk. lu jàmm gën mës a am. maanaam seen mbër muy bëre roi des arènes. suma jubul tay le 19 xaw ma 18. tay le 19. tay le 19. waaw novembre. waaw octobre octobre waaw. bindal tek Siteu day bàyyi wa jàmm ngeen bu dee Siteu bu bàyyee ngeen bàyyi ko di ngeen bàyyi. no Siteu du bàyyi. day bàyyi ci làmba ji. no Siteu xale la. Siteu bu Modou Lo bàyyiwul Siteu fan la wara a wé ci combat bi Lo combat bi temps bi mu ci am entraîné ko. waaw ak moral bi mu ci am préparation bi mu am. geuj naka am ci làmb amu ko contre Ama balé mhm. amu ko contre euh, Boy Niang. moy mhm. lolu amu ko contre Ama Baldé amu ko contre Boy Niang si Siteu si daa gën a ñàkk sens ñëpp combat bi da si ñàkk sens Siteu nan la ñàkkee sens Siteu bëgg a bëri bu metti Modou dafa pare moytul ma Modou loolu roi des arènes ku pare waaw moytul ma pare Modou dafa pare Modou dafa pare billaay yow dafa pare ñun dafa pare dafa pare mental Modou man dama koy xool mais damay dama sama yaram day daw Modou gentleman la barke alxuraan gëree la ànd naa gars yi ñoom franc ñoom góor a soog dem di préparer làmbam kenn déranger ko déranger wul kenn coowul. Siteu janvier la jëm de. non c'est bien comme daan dem janvier na ñëw continuer janvier bu mu changé li mu daan def bu changé dara ñëwal ñu ngi lay xaar. mais suñu ñuy Siteu benn noir waa parcelle la. benn noir daa am lan lan waxoon Ama Baldé parcelle kenn daanu ko fi. bi mu ñëwee benn coup la jël du du jébalu ci coup. bu ñàkkee chance ba daje coup Modou Lo. waaw déggoo ma de mooy gën mooy raw Ama Baldé na moytu nag na moytu doomu. mais seen dernière face à bi nga leen gisee ñoom ñaar. non surtout wàññiwaat ba ba oos. waaw mais nag wax dëgg yàlla man dew ma woon quoi dama nekkoon si ay affaire mais xam nga gisuma si a wàññi ak yokk wax dëgg yàlla mais man Modou laa gis ni mu toog mu ngi ñax ak ni mu mel. parce que bi suba la maa ngi. mooy góor la moo tax nangu gis yow mu ki nga xamante ne moo Siteu. non waxuma amul forme moom moom la concerné forme am. lamb la yow ñu shooting barki démb nee na ñu tiit. man shooting bi ma gisee. a commentaire yi dama jooy. gaa yi leen di bu lépp la ñuy wax quoi nan nga denc ba la 24. shooting yi bokkul Modou wane na boobam disoo ay buzz génn nañ di wax. Mhm. commencé jëfur ay buzz. Mhm. na non Modou poids bi mu yor waru ko bëree. dafa diis naa nga Modou Lo moo moom yaramam Modou Lo ñoo nekk di entraîné avant moo dem euh, kiwam regroupement mhm. Modou Lo Bambey di ko entraîné ngay di physique bi Modou Lo pare moom yaramam cak cak cak taw suku dóor du ab yowoor oh, ma ni oh Modou oh. moo tax gars yi nan ba da nga fan Modou Lo non nga di fan kooku jàmbaar la kooku boo nekkee ak moom da nga koy fan kooku day def si yow jaamu yàlla déggoo ma de jox la ngay lekk respecté la loola ku la gis respecté la noonu ku la koy def loolu la yàlla bëgg ku lay jëmale si yàlla da nga koy da nga koy bëgg Sénégal nag malheureusement jeunesse bi doo a juddu ak bi ñoom lu bon moo leen gënal lu baax xam mais ñun lan am conscience tranquille am xel ay jantal me lan ñun lu baax moo nu gënal lu lu rafet moo nu gënal lu ñaaw te képp kuy jeune loolu lay digal. mun mais mais Modou Lo ngi bëreeg jàmbaar. waaw Modou lu mënti xam mu ngi bëreeg jàmbaar. Ama Baldé jàmbaar la boo Niang jàmbaar la. waaw kon ay jàmbaar lan ñoom ñëpp ay jàmbaar lan mais dañ bokkul. ñu benn masi xal bi xal. loolu la naar naan masi xal bi xal. bokkul naka suya naka suya suya. billaay wallaay naka suya. bi zëf dafa bari bi zëf wàññil tuuti. bi zëf naka suya wàññil tuuti. non Siteu moom lu wàññi day yokku. non xam na li koy xaar. waaye Siteu yor na gën a yokku. Lac Rose bii mu tëju xam nan ñu nu ay wax duñu wax. kon Siteu a ngi Rose ngi Lac Rose man góor maa la ko wax Siteu a ngi Lac Rose tëju. noo def xam loolu. waaw baay ñun lay bëreel de c'est que ñoom ñooy teel a wax rek wala ay teel naan ay xam nañ lépp ñun liñ xam dëxuñu si duñ wax te du lépp la ñuy wax sa waay Siteu a ngi Lac Rose bii tëju waaw barki Demba Ndiaye. Hmm. appel vidéo bi mu appel vidéo waa parcelle maa ngi koy gis. kon lamb ji teel naa lëj ah. non man du ma ngaaka yow. jantal laa dama xam lamb ji daf ma commencé man daf ma commencé dépassé. ñun de dépassé woon ñun waa parti ñoom nag dépassé na gis naa leen démb ñuy live toog buntu kër Siga di live di wax góor mbaxal lii góor mbaxal laa góor mbaxal doomu jàmbur la comme ñoom jantal la comme ñoom lamba la rek na rafet. lamb ji combat bi roi des arènes bi bu jaree business ñu business ko. bu dee jaay ñu jënd ko. business suñu jaayuñu. ñoom ñoo ko wax. ñoo bu dee dañuy business ñu bu dee dañuy jaay ñu jaay ñun business suñu jaayuñu ñu ne day làmb. ku ci teg làmb Siteu nee na day dagg moom da koy jël. Mm-hmm. lim moom ku ci teg loxo mu dagg ko. waaw ah, heureusement ba moomu ko li Modou moom Modou ko moom teg ko. bu doon moom li mu moom. moom nee na da koy jël si de. non non yow moom comme moom li mu moom lay dagg loxo. na ah. dagg loxo waa jaama gën ñun li mu moom nag xam nan ko moom moomagul. ah moom nee na nee na da ngay jël si de. waaye Siteu du may la Siteu déggoo may la day wax nii rek day bala balaa nii rek muy muy wax. kon yow gëmoo ni Siteu mën na yëngal. moom xalaatuma ko musuma ko toogee ah bàyyi mu nga xam ne Siteu Siteu mooy kan foo toj loo fi def. ah non Siteu def na fi dara nag. ah lan la fi def kon bu fi defee dara Mourou nan la mel. barki Demba Ndiaye parcel gi yëpp la jooyloo. barki këpp seen reer muy kan. ah Papa xanaa. man ñi ma jooyloo da nga mën a donc en tout cas daal. lamba lan ne di lamba bii bii. Mhm. jarul coow li di bari. wala boog. mais c'est que communication bi sax dafa changé léegi. non day changé. góor la. billaay communication bi day changé de. amul lu ñu fiy maye. maye woo leen tous. amul lu ñuy neexal. matu. taal leen caméra yi ñun jàmm gën lañ jëm nii rek. waaw yow demal déggoo may la bul bàyyi waaye bul bàyyi Sika Mbaaw. fa lañ jëm nii déggoo bul bàyyi Grand Mbaaw bul bàyyi Petit Mbaaw bul bàyyi jàmm gën. bul am bay fora bul bay dara demal fep ñu ngi leni xaar ñom ñepp lañi boole tay leen si gamu lem. lamb ji tay dara du yom ñom ñepp lañi boole tay leen si gamu lem soxlo nu lu yomb. site site le dego man la xaragne xaragne le non man man billaaw essani man maa ngi dund lamb ji ci bir essani dama jot ku ñëw ci man da ngay dund lamb. non lamb ji man ma ngoy koy dego man la journaliste man la ñuy wër man damay lamb. non ya fi man la fi yalla tek da ngay nangu ñu dem bo nangul dama lay bàyyi. gars yi li ñuy wër-wër yëpp mu ngi fii toog parcelle ak jàmbareen déggoo maa ngi toog oyofal ubbil naa bunte yi bépp bépp journaliste man rëyu ma ku ñëw ma interview si lu rafet lu ñaaw boo ko fi bëggee doo ko fi am man du ma saaga nit non amul du ma wax nit lu ñaaw yow xam nga ni man ku ma dékk micro rek ko responsable am na lu nga xam ne maa ngi koy gis naa si réseaux sociaux yi yenn booy nan bàyyi li ñuy def dëgg la ak yenn caméraman yi nan bañ a teg yenn insulté yenn saaga yi Sénégal tollul fu nit ñi di saagante fii Serigne Touba fi dëkk tëdd xam nga maam Malick tëdd bi yaa ngi dégg ay Baye Niass ay naa Limaamu mhm. ay kilifa bi tëdd am na loo xam ne xaju fi diggante nit ak nit Sénégal dafa tuuti na rafet caméraman yi nan bàyyi booy ñuy dugal ñuy saaga bu dee waa parcelle yoon la nan ko arrêté bu dee waa jàmm naka bu dee waa Pikine bu dee waa Gaa naka arrêté combat bi dafa neex ba pare waaw kun yar mhm. kun si biir kër doo génn di saaga yaayu jàmbur man du ma saaga yaay jaam parce que dama respecté sama yaay. mooy dëgg dama respecté sama papa. mooy samay mag respecté samay rak. looloy ful la ma saaga nit du ma wax nit lu ñaaw. looloy ful te lu ma nit gën a bëgg ma bàyyi ko ak moom. bu dee làmb Siteu ak Modou jaral na ma doorante yàlla bu ma waxtu bi raw. damay neexal. mais du ma si wax lu ñaaw mais damay damay làmb de bii da ngay làmb de. xam naa ne da ngay leen de damay làmb. te yaa ngi suul yaa ngi gës déggoo may la bu jaree déggoo may la tonni ñu tonni bu jaree ñu ñee bu jaree ñii ñu ñii. Ah, man de saa Touba daf ma jommal man. kooku mën na lépp. waaw yàllaa ko teral ku yàlla teral da nga koy nangul. non saa saa nee na moom day dugg jàmm gën gént kenn du ko gis. loolu mën na ne man damay dugg jàmm gën kenn du ma gis. meles yi doo leen ñu ci awal ñu. non non loolu farcelle léegi la am ay meles la am meles moo dekkiwaat. mais man c'est mais midi. stade bi fees del non ku yeex doo gis fii. Mansour Ba ay de doomu parcelle dañ koy sotal dañ kay xeexal. mais Ba waa jàmm gën si ka mbaaw waa 16e waa non. Oh. fii fii ba 26 la xam nga ñoom ay 16 lañ yam. Oh. moo tax ñun parcelle 1 ba 26 la Grand Médine déggoo ma la Cambérène Grand Yoff. yàlla nañu yàlla suturaal Médina. lamb ji yàlla nañu yàlla sutura amiin yàlla na yàlla def jàmm sutura mais dama dama xam ni Siteu Siteu la bi bu jógee boor bële waaw waat xarañ féete fii Modou Lo ah. xaarañ loo. Modou buy dégg lool nee na góo sama xol bi ni muy seddee. ba man damay yaakaar ne arbitre sifflé pour ma yóbbul leen ndam li moo doy wax de. Modou Lo moo nee na su ma déggee Modou Lo. Mhm. xaarañ loo. nee na sama xol day sedd damay njaab def leen rend bi damay yaakaar ne def leen damay yaakaar adversaire bi ñëw ma da wan ka li waa parcelle di wax am na fi xarañ bi. xarañ mu a xarañ. no soppi. non yow boo seetaanee dernier combat am xam ne amu fi ku toog 6 ans 7 ans bëriwul ñëpp ni dafa perte repère mu ñëw ñu koy mboot mu mbaar la. doxantoog ñoom. déggoo ma dugal ay coups boo ñaani nanga mu Philippe Lamat ka. ah ma ne delloo koy. waaye kooku ko a kooku bu doon kooku bu doon làmb bu doon bëre ñu ni Messi. maa waxtaan xajul ci xajul ci une heure. yéen a am mais ay Maro day ñëwaat de. bàyyi may leen bii tay rek yi may. day saapaaral barke yo day saapaaral la leen wax. waaw mais sama copain day sigil sama si sig ñëwal. ñëwal boor bi ki may seex tali bi ah, sama seex. Cheikh yow yow xam nga ni yow du ñëw